Assalamualaikum àdduna assalamualaikum Sénégal ñu di nuyu di leen ziar di am contentement bu baax nag àndaat ak yéen fii ci seen émission bokk ci bi miroir de la di nuyu mba kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal aussi ñu feebar moo xam nga tëdd ci daal hôpital wala nga nekk sa kër yàlla na yàlla fëgg sa bopp yëkkati la ba nga taxawaat say waaye daal yàlla na yàlla yërëm xaale leen di amaat nag contentement bu baax a baax a baax parce que laa RNB mi ngi nii télé banlieue bi nekkal fi banlieue nekkal fi jeunesse bi ànd ceeg seen euh, animateur Yéli Saali Xaar tey nag suñu émission yi Serigne Bokk lañ ko waxee comme ko waxee woon Bokk moom muy laal dafa motax buñu ko luñu neex la tay nak dañu dugg ci ben artiste bu mag tekk kat bu mag ko xamanteni balé bi ñepp xam nañ ko ñu gën ka xam ci Abdou Diouf. oui Abdou ñi ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax baax. waaw di nuyu ñepp di leen ziar di leen bégé bu baax baax di leen nuyu bu baax aussi di leen jox seen way di sant yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ñaan aussi senegal jam rek safi télé bi maa ngi leen di nuyu RMB TV seen liggéey rafet na di leen ñaanal yokkute ak ndam di nuyu ñëpp nag ñi feebar yal na leen yàlla yëkkati. xam nga képp ku nekk ci ay tolof tolof yal na la ko yàlla teggil nga am jàmm ndax Sénégal sunu Sénégal la. benn bopp la kenn du ko xarñaar kon yalla nu yalla defal jamm amin amin comme ko waxe rek senegal suñu senegal la. te ben bop la kenn mënu ko xàññe. moo tax Abdou borom yëmbal borom Kër massa borom Buun borom Komiko borom fasma deug la borom Bari nga xamanteni ku nekk de xam nañ li ngay def ci musique. dëgg la ngay def ci art. deug la motax abdou mhm. Abdou tey jii. dama laa dama lay ñëk laaj ben question bu xol ba xam di ko antal ah ah c'est <laughs> ah, normal. manam tay en tant que tukkat sawal hmm ak tey lan moo tax nga tëgg maanaam yow lu waral nga tëgg waa tëgg xam nga. aar moom da koy jàng wala mu nekk sa deret wala nga jàng ko li ko la li ko ma ñoo nga koy doon bokk wala mu nekk sa deret wala nga jàng ko. dëgg moo waral sa tëgg yow waaw waaw question boobu nag rakk man dama ciy kontaan et puis c'est normal nit ci lépp looy yëngul ne euh, am na foo ko jëlee. nit lépp looy def rek am na foo ko jëlee nit dara tëbul tëb rek nekk ci moom. mais lu lu lu mel ni wàllu aar dama koo moom. dama sama yëf la aar dama koo moom ndax man yàlla dafa dogal ma nekk séeréer. ci ndey ci baay. te wàllu tëgg ak yooyu ñun suñu domaine la xam nga tey jii boo demee ci cosaanu séeréer séeréer culture am cosaanam aadaam boo ci dindee tëgg ak way cosaanam jeex tàkk. nekk séeréer rek. bu la nexé nga né artiste nga ah. waxuma la nga bol di teug man teug dama ko mom dama ko mom dama ko don dafa nek ci sama famille yaay nek ci sama famille papa nga jang ko manam tay dafa da ko mom moom ko don koo ko mom don ko ba pare jang ko encore. jang ko encore parce que tay di da nga judd fekk seen waa di teug way da nga judd fekk fa ndi way mo dañ la forcer pour nga teug sama papa teug kat la. xam nga tey jii buun buun laa dëkk tey jii buun fi mu commencé ba fi mu yem boo nee juuf Tama buñ la neex ku la ne xaw ma ko rek nee ko yàggoo fi démb nga fi toxu si mais ku fa yàgg tuuti rek xam nga ne premier tambour major de buun c'est Babacar Diouf sama papa loolu ñépp xam nañ ko sama papa tama bi mu doon joué moo tax ñu ko naan naan Diouf tama yow léegi nag le temps que xam nga man maay taaw ci góor ci sama papa léegi nag xam nga doom bu góor moom sa taaw sama papa bu daan dem programme damay jóg ànd ak moom su ma yóbbu sax dinaa jooy ba mu yóbbu ma xam nga di ma yóbbu ay programme à base xam nga ma nekk ci loolu nekk ci loolu loolu moo tax ma doon li ma doon tey sama papa moo def ci man aar. kon yow ute nga ak tëggkat yu bees yi ute nga bi dañuy tëgg ñëw rek di tëgg. No, bokul dañ ko mom dañ ko doon dañ ko doon xam nga nit limu mu doon da ko doon ñun ah ba as di and sama papa ay programme sama papa moo ma jàngal wax ci tax samay lañu ngi nit maa bari di wax ah gis nga ko ci lañ dundu ba macha allah yalla yàlla xeb yàlla yalla xeb yokk <laughs> euh Abdou fi may ñëwaatee oui parce que comme ni nga wax sànq mm-hmm. te gën koo doon kon yow. Mhm. xam nga li ñuy defaree lënd. way lënd dafa façon. lënd mhm. lan koy defaree lan lan maanaam lan moo war la ñuy defaree lënd. sabar ndënd boo koy foor tey jii xam nga bu ko lawbe bi yettee. dëgg ba pare jël bant bi yett koo pare retourné gratté ko. moom lawbe da koy gratté su su ko mënta gratté yow géwal bi nga toog grattel ko sa bopp. papa bant bi ritax nga papier ko mu ritax jënd diwtiir diwtiir bi ngay gis ni, mom nga ci diw nga gis bant bi nag changé couleur rafet et puis bant bi day Pas a nggak parce que xam nga bant dundal mooy nga ci frotté manam benn produit surtout lu mel nag diwtiir diwtiir day dundal bant bi day tax bant bi nay day nek bo paree ci loolu nag boo koy foor da ngay dem jëndi deru béy deru béy xooj ko ba mu géjëf nga jël der bi wat ko ba mu set soog koo foor waaye balaa boobu day fekk nga ut ay xiir ñun géwal ñooy foor waaw law bee yett jox ñu waaye ñun ñooy foor waaw ba pare tëgg ko waaw bu ko defee deru béy bi wat la ko ba mu set am nga ay xir am nga ay pek moy bant yoy ngay gis bu ko defé nga for ko for bu rafet té su démé ba waw bu diré 2 jours rek waw bu wowe nag nga soga a jël lañ set na xoos ko na ba mu set nga gis bant yoy ci nek nonu benn bu ci nek accord la. fofu la ñu ñëw dina ñëw fofu noonu benn bu ci nek accord accord. parce que dama ko sel seetlu. lan mo wara bant yoy tout temps set lay do set ah, lay doon. dama kaa seetlu quoi dama kaa seetlu ci sama yu mu demee. waaw bant yooyu tout le temps set lay doon soo gisee mu nekk set. musique bi àdduna sosoo ba léegi musique sept notes la sept notes yooyu mooy do ré mi fa sol la si sept notes yooyu nga xam ne mooy sol solfège mooy sabar sabar gis nga tëggkat yi li ñuy tëgg noonu li muy rëy rëy rëy sept notes la. set notes yooyu mooy dooree mi faa sol la sido boobu ngay dégg sol fees moo tax même bant yi set bant yooyu ngay gis noonu bant bu ne accord la sabar set peeg lay am set peeg yooyu mooy confirmer set notes yi. macha allah kon yow yàgg nga ci nënd bi. yàgg nga yàgg nga ci nënd bi man man de comme ni ma la waxee commencement bi. tey jii ab ñaata façon sabar moo am parce que sabar bari nay façon. am na xiin. Mhm. am na pegmees damay dégg mag ñi di ko wax. pegmees oui. am na nan kii jëmbe. waaw yow daal dina yow décortiquer ma ñaar façon sa sa sabar. xam nga euh, côté boobu sabar. Mm-hmm. dañ naan cool. Mm-hmm. mbëng-mbëng. tungune sabaru ndeer. Mm-hmm. goro yégal ba pare tungune. tungune baas dafa am. am tungune yoo xam ne kuturu lañ koy woowee. ndax. tungune bu ndaw lay doon léegi nag tungune yi tungune bu ndaw a ndaw ak bu ko ëpp tuuti bi ko ëpp tuuti moom la ñuy woy comme ça baas base tungune base boobu moog tungune kuturu bu ndaw boobu seen son day am différent bi da ngay dégg mu naan kum sabar yi bu ci nekk à chaque seen son day am différent waaw sabar benn bu ci nekk day am différent bu ci nekk ak son peeg mees boo ko déggee ça veut xam nga léegi ni ñuy foore jémbe dañ koy foore sabar léegi dangay gis sabar comme jëmbe te du jémbe sabar la parce que li tax mu nuroog jémbe mooy dañ koo foore ni ñuy foore jémbe te waruñu koo ni ñuy foore jémbe foor sabar mooy ay mees xiir nga xiire ko boo paree jël ay mees bu ko defee peeg yooyu ak mees yi moom la gaay naan peeg mees pour xamal la ne fooru sabar bu njëkk mooy peeg ak mees tey nag évolution ñëw ñi koy def duma leen blâmer duma leen blâmer parce que àdduna métier boo gis rek parfois avancement da ciy am portable bu njëkkoon portable yi amoon ay année quatre-vingt-dix-neuf ak léegi est-ce benn la tey teg moo xew. am na yu fi njëkkoon a am ay touche la. pourtant yëpp téléphone la. mais am na différent tey yooyu yëpp nag ay création la rek dañuy dem gars yi dem ba benn instant ñu am yeneen gis-gis yu bees. essayé ko mu dox mais loo gis dafa am cosaan sabar dafa am cosaan cosaan mooy peeg ak mees. loolu sabai te dum dal dëkk bi sabai sabar ah sabar ni muy jariñ bari la mais ci biir tëgg yooyu ya, noonu mhm. nit ñi programme bu ngeen tëgg ak lu koy tëgg wala boog si effectivement noonu la demee damay dégg ñu ne bu dee sabar dafa gitu. eh, ya. am luy jiitu bu dee ngeel dafa am luy yi ngeen di jiital bu dee ndëpp dafa am lu koy tëgg est ce que xam nga fi li ma bëgg a wax way xam naa la ngay wax sonorité yi day am différent day am différent parce que bu dee musique bu dee musique bu dee soirée quoi musique ñaar sabar koy tëgg soirée comme ça tey jii xam nga soirée am na deux façons bu dee soirée orchestre nga xam ne da ngay teg clavier guitare cello guitare basse batterie hmm, nga xam day amaale sax harmonie clavis buy def harmonie orchestre boobu deux bu njëkkoon même bu fekkee deux percussions lañ teg mm-hmm. ba trois da ngay gis benn tey toog di ko jouer mais tey dañoo dem ba orchestre bu nekk ñaari tëggkat ngay gis wala ñett tëggkat loolu yëpp évolution la mais bu dee orchestre musique moderne boobu ñaari tëggkat doy na wala ñetti tëggkat léegi nag affaire yi avancé na ba nga da ngay gis groupe boobu dañuy ñeenti tëggkat da nga ci da nga koy gis. waa mais yooyu yëpp nag bëgg rythme bi gën a fees moo tax man la yooyu yëpp ci avancement moo ko indi évolution création bëgg affaire yi gën a am doole moo ko waral. bu sabarunder par oh, exemple bu ngeen di bu ngeen gitu. nah, kan di tëgg comme ay tan yi xew ci koñ yi quoi. waaw waaw waaw domaine sabar. waaw waaw yan ngeen ban sabar ngeen di jiital. kooku sabaru ngay jiital mooy nekk ci kanam di diriger kooku mooy mettre en scène mooy taxaw di diriger waaw tëggkat bi nga xam moo ne ci kanam moo diriger te sabaru ndeer lay yor rythme bu sabar boobu lay joxe mooy def appel yi. di expliquer bi na ci ginnaawam cool bi di tulli xam nga cool mooy tulli cool boobu di tulli nag moo sabar bi diriger communication la dañuy waxtaan kee day teg ñaari not kii teg benn wala ñaar dañuy waxtaan tak tak tak tak tak dañuy waxtaan moo tax sabar dafa garaaw tey jii bu ngeen tëgg sabar sabar dafa garaaw li nga wax noonu dama dama cee gis ay kéemaan yu garaaw. tey ngeen tëgg sama yéen. Mhm. da ngeen di ñëw rek tëgg wala da ngeen di tàggu xaw ni tàggu mbaar waaw tàggu mbaar ah, xam nga comme nouvelle ni ñuy tëggee moom da ngeen ñëw rek tëgg teg nañ di rek tëgg. waaw xam nga léegi tëgg bi gars yi dañ cee changé affaire yu bari dañ cee changé affaire yu bari te dafa am yoo xam ne nekkul lu ñu war a changé. parce que affaire bi pour mu nekk fi il faut ñu indi originalité bi. original tim waruñ ko bàyyi ginnaaw bu njëkkoon ñun bi nekk man sama classe bi nekk ay boy ndaw di and suñu papa yuy tekk suñu ñëwé tek bu ñu sàjjee programme bokk nit ñi tok ñu wara tekk ngay gis ñu def yaaji mom mam Bamba yaaji mom ci sabari para def mbar mbar buki del wacc yaaji mom ba mu def ko ay 4 cycle 5 cycle tëj ko soga def musical def musical sabari di waxtan ci seen bir communication momu ba pare na soog a indi yoonu teug buñ paré ci yoonu teug bobu parce que yoonu teug bobu boko ko paré pare doxal mag doxal lañ ko daan wax da ngay daal di doxal bo doxalé def tagu mbar doxal ba ben instant nak ci la rythme di soga a nak nga def ardin def far jar def ceebu jeun def baara nit ñi fecc boo defee ardi nit ñi dañuy fecc nga def far bu jën nit ñi fecc nga def ceebu jën nit ñi fecc nga def baara mbayam nit ñi fecc kon booy xool muy quatre morceaux yoo tegle nit ñi fecc ba ñàkk. ci biir fecc boobu laa lay demander benn question extraordinaire boo xamante ne dama koy gis ci def na ma kumb. muy la. lu tax bu nit di fecc sooy dàllam dina ngeen arrêté tëgg yi. waaw parce xam nga. Mhm. sol dàll. di fecc di fecc du aar. xam nga ah, nit ñi dañuy soxla parfois gis loo xam ne aar la bu njëkkoon àdduna bi nii mu avancé tey façon dàll bu ne génn na am na dàll yoon tey sax nit war na koo mën a sol tey fecc ndax avant réew mi avancé mais bu njëkkoon ak façon dàll yi nga xam ne ñoo fi bëri woon tamit nit di fecc bëreet suuf si jóg mu takkal boppam suuf sotti ñi koy seetaan suuf sotti ko koy tëgg suuf nga summi dàll moo koy gën a silvissé. ci loolu daal maanaam yéen ci correct ci nga nga summi dàll fecc doo def kenn suuf mooy gën a silvissé que nga sol dàll yoo xam boo nee bëreet def nit ñi suuf. dégg naa tamit day doon naa dégg ko ciy wax aussi. Ah, doon naa dégg ko ciy wax naan day toj gàllaaj mën na bañ a toj gàllaaj sax mais dañ lay xamal ne li xel nangu mooy. Ah, ah. sol dàll yoo xam ne booy fecc def nit ñi suuf summi dàll yi fecc ba pare doo def kenn suuf moo ko gën. loolu la xel gën a nangu. léegi nag fekk loolu lañ daan gis bi ñu nekkee ay xale màgg moom léegi bu ñu la gisee ngay fecc te sumi woo sa daal loolu day manqué xamu nit lu mu tàmm gis loolu lay mën a gis pour mu nekk firi mais loo tàmm gis boo ko gisul li ngay def day mel day am lu ci manqué. looloo waral tey jii comme ni nga wax sànq rek parce que tëgg dafa gaaw. Mm-hmm. dafa bari ay kii te xam nouvelle génération bi ku nekk day dund tamit. waaye waaye waaye xam nga rek n'importe qui day di gars yi naan ñu dañuy dañuy wayaan loolu ba tamit aussi damay gis des fois ngeen di sabe seen sabe koy fooree muus. waaye nga defee du bi wala yàq aar loolu yëpp comme li ma la wax léegi nii yàq du ko yàq. da koy yàq du ko yàq. waaw. waxin boo gis déggin lay laaj soo déggee da koy yàq du ko yàq ça veut dire lépp évaluation moo koy indi am na fu mu lay arrangé am na fu mu tëddee arrangé wu la fi mu lay arrangé tey jii bu nawet ñëwee xam nga nawet moom liggéeyukaay yu bëri te ndox mi laal ko mu am problème te der buñ ko fooree ci sabar bu ko ndox mi laalee bu tawee bu tooyee da ngay waaru day désaccordé mën na xotti sax sabar bi parce que ndoxu taw dafa mel lu am asib foofu toile da lay parce que toile man na toy te tërë ngay tëgg. mais ba mais ba jamono yi neex sax. léegi nag ba jamono yi neex. waaw teug dañ dan arrêté dañ daan nawet daan dañ daan arrêté na daan di teug bañ am daawu teug lolu mo xana xamone lolu mo jaadu. lolu jaadu. lolu dafa jaadu. tay ji ñun man may gëna nekk xalé gis nga bu nawet musaan ñew da ngay gis programme dañ koy wàññi. koy xam nga bu ñu programme fofu sabar mënu fa toy mm-hmm. mais. évolution avancement day créer ay affaire xam nga tey jii dem nañ ba léegi tey da ngay gis nawet ci digg nawet programme yi tax day bëri. ci digg ci ah parce que loolu dafa yaakaar ne avancement àdduna moo ko indi mais bu njëkkoon bu ñuy nekk ci aar ba nawet ñëw dañuy wéeru ndënd yi nit ñi dem ca tool ya bay ñu arrêté nag ambiance bi nit ñi dem ci seeni tool bay bu ñu paree ca bay ba. mooy nawet jeex na ñu dem ci noor dootul taw dootul def dara bàyyi nañ am nañ xaalis seen lépp réussir na léegi ku ci am looy xew nga xew. macha allah tey li nga li nga ñu expliqué lu ci nënd. Mhm. amaate yi ñi leen seetaan te xamuñu ko ci ñun dinañ ko xam. oui sabar gars yi jàpp nañ tëggee rek son euh, effet sonore la gars yi dañ na dañuy sonore pollution sonore tey dafa doon loo xamante ni ñu bari xamuñu avantage. te am nga yu bari aussi yooyu ñu xawal yoo jox yoo ma a leeral yoo xam ne man mi xaw ma ko damay dégg def ma ngi mais leeral mhm. mhm. te yaa ma ko leeral mais yow Abdou tey sa diggante ak yeneen artistes yi ni mu dem en tant que tëkk en sama diggante ak yeneen artistes yi man damay béggee sama gaay nag sama diggante si yeneen artistes yi lu ma neex la artistes yëpp samay xarit lañu. samay xarit lañu parce àdduna boo nangoo li yàlla dogal doo sonn sa xol du jeex di nga am jàmm di nga féex doo mere kenn mais bu yàlla dogalee nga ne yàlla warta dogal lii lee la war a dogal kereel nga sa bopp ay ennemi dootoo yéen nit lu mu am di nga romb nit doo ko nuyu mere ko te defu la waxu la li la sonal mooy dangaa nangul li yàlla dogal te affaire yi mm. ambiance bi neex na programme yi neex na musique bi neex na mais il faut ñu xam ne nag yàllaa fi ne il faut ñu xam ne aar bi métier la mais nag ay jullit lañ ay doomu aadama lañ dañoo war a jaamu yàlla dañoo war a fonk suñu bopp dañu war a fonk suñu réew fonk suñu cosaan ak suñu aada fonkante ci suñu biir nit lu mu am nga yéene ko ko. parce que loolu loolu mooy Sénégal artistes yi war nañoo am mais buñ ko amul seen bopp lañ ko def artistes yi bu ñu fexewul nekk benn defuñu ko kenn seen bopp lañ ko def ndax ci benn ci réseau boo dem ña cay yëngu fexe nañ ba doon benn politiciens yi ay gayan lañ nekk nañ benn mason yi ay gayan lañ nekk nañ benn mécaniciens yi noonu commerçant yi noonu kon artistes yi dañu war a nekk benn bëggante solidarité buñ ko defee moo leen war buñ ko deful defuñu ko kenn seen bopp lañ ko def. looloo looloo looloo looloo leen war sax nag. mais moo jaadu ci lay remercier nañ depuis sax Mbaye Seck. waaye. ku baax ci tëgg kat koo xamante ni ku baax ci tëgg. waaye ku ci am yërmande. waaye ku ma gis aussi mu ci jàppale nit ñu bari. waaye. yooyu tamit loolu moom dégg naa ko ci loolu moom. mën naa kaa seedeel mën naa kaa seedeel quoi macha allah. dëgg la tey jii Abdou. Mhm. yéen programme tey jii amee. est-ce que mhm. ngi leen di fay ni ñu leen war a par exemple bu dee xew wala bu dee sabar bu dee ngel. bu dee leneen ak leneen maanaam ba xam ngeen ñii ñi ngi leen di fay wala yéen du ngeen am parce que tey jii da ngeen yor orchestre mhm. da ngeen ànd ak ay booy mhm. ngeen pare ba yëkkati seen xaalis yéen yéen a ngi jël seen xaalis di koy yokk ci fay paiement yi di fay booy mhm. maanaam loolu daal yéen ñu ngeen koy ñu ngeen nan ngeen nan ngeen di wax nit ñi ci loolu waaw waaw loolu loolu xam nga euh, ci domaine boo dem il faut que mu am moral il faut que mu am moral nit parfois day bëgg loo xam ne dooleem mayu ko ko waaye bëgg na ko te nit lim bëgg ci nga ko mën a jàppale nit li mu bëgg ci nga ko mën a jàppale kon parfois ñu fay la lu ko jar parfois ñu fay la loo xam du ko jar bun la fa mais effectivement parce que nit bu fekkee li ngay def da nga ko gëm hmm. yow professionnel nga ci li ngay def fi nga dem di def hmm. boo fa jëlewul lu doy la nga yor yow nga dolli ko ci li nga yor pour satisfaire sa bopp da nga ànd ak say nawle joobandoog ñoom liggéeyandoog ñoom pare nga ki nga digaaleel donte moyen demewul noonu mais yow di nga fexe ba ñi nga àndal seen xol sedd ñu bëgg te loolu mooy yoon mais nag loolu nag du ñëpp a koy def waaye lu jaadu la nit yow sa bopp yaa war a bëgg lu baax xam nga dafa am duñu nekul luñuy jangal nit te duñ ko sax imposer nit li ngi nan aduna ay xel beur aduna ay xel mo fa ne nit da ngay xam lu la waxul So andé sa nawle nga respecté sa nawle te yéné ko donte amoko sax waye nga fexé bégal ko touti nga xamné amo lu ne gañi waye fexé nga sét li rafet nga def ko ba du mer parce que déplace yombul nit nangul lay yombul kon ki la nangul loko ko defal ne xep ko c'est ça fa nga dem bu demeewul wul nenn tamit amna lo yor motal ci la nga yor fexé ba ñi nga andal kenn ku nekk nga satisfaire ko mais tay comportement kat nan la war a mel ci ci ci ci milieu bi ko comportement kat xam nga des fois tay nga gis tekkal bu sol lu ko neex hmm xoti fi wadal ki manam mhm. bo xé ñu ne ar hmm tay tekk tëkkat dangaa war mel loo xamante tey foo taxawee nit ñi respecté la. Mhm. surtout géwal géwal quoi géwal en tant que géwal tëgg. tey foo solee sol macha allah taxaw tey jii tëgg nit ñi jox la cër jox la cër bi nga moom. Mhm. mais loolu léegi booy xam nga rek booy bi ñuy tëgg yi ni ñuy sol li tey tey jii complètement ak maanaam yaa cër nekk cër gi war a nekk nga xam nga lu mel noonu. dafa am loo xam daf ci joué. Euh, muy lan formation dafa am important.

dafa bokk ci li tax boo demee ba doon ko nga xam fi ngay teg sa tànk dan la ci yar teg la ci yoon xamal la ne mbir mi lii moo ci bokk lee bokk ci loolu aussi dafa bokk ci liy dimbali artiste moo tax gisoon ndaanaan yi nga gis ci réew mi nii ñi ñi fi doon ay ndaanaan te nga fonk leen naw leen ñu ci bari ay doomu ndaanaan lañu ñu ci bëri ay doomu artiste lañ seen papa yee nekkoon ay artiste seen grand frère yi nekk ay artiste ñu nekk à bas âge ci art bi ne ci kër gi kër gi nekk këru artiste kooku dañ ko redressé dañ ko xamal ne artiste warul mel nii géwal warul mel nii géwal warul géwal warul waxe nii géwal warul soloo nii géwal warul doxale nii ak nawleem kooku dañ koy redressé jubbanti ko avant muy tollu ci demal boppam léegi moo tax bis bu demee ba tollu ci demal boppam day yor jikko bu rafet day yor yor comportement bu rafet parce que defoon nañ ko ci moom formation boobu tamit dafa am important léegi nag booy ñi nga xam te nii nag ñoom amuñu loolu li leen mënoon a dimbali mooy ñu roy ci seen morom yi ci ñuy def lu baax ndax aar du foowukaay. mais tey yéen ñi ngeen ngeen di corriger quoi comme ngeen gis naka su dul ñu corriger. dañ lay corriger à bas âge nga màgg ak moom mooy waral boo màggee jombale sa bopp yenn yi soo màggee da ngay correct da ngay tegu ci yoon da ngay xam ne ah no lii waru demee nii warumaa def lii warumaa wax lii warumaa soloo nii bu ko defee da ngay nekk nit bu nekk nit bu nekk nit boobu da ngay exemplaire bu boobaa yow tamit ñii ànd ak yow di nga leen mën a corriger mais bu fekkee ne yow kenn daaw la corriger boo màggee munoo corriger kenn te bu njëkkoon loolu daf ci amoon bu njëkkoon ñun bi ñuy nekk ay booy dañu ne woon cocc ndax suñuy papa lañ daan àndal suñu papa yi ak seen génération man jamono bi sa papa di tëgg ay génération am ñoo ko doon tëggale ay xaritam ay mbokkam te ñoo ñëpp ay mag lañ léegi nag ñooñu seen doom yi bu ñëwee rax seen biir dañuy xel di corriger seen doom yi di leen jubbanti di leen teg ci yoon léegi loolu boo ko màggaale da ngay comprendre après boo dee ba kii da ngay xam nan nga war a incarner noo war a imposer da nga koy xam parce que teg nañ la ci code mais tey jii yéen Abdou euh, ba bokk ci géwél ne dañuy wayaan rek ko kii ma ko jox sama programme day wayaan maanaam lan moo waral loolu quoi parce que tey jii yéen dëgg la géwél day wayaan ci ci ci programme mais tey ñu jox leen saba wala ñu jox leen benn mariage wala benn li ngeen war a doon daal mm-hmm. mais wayaan gi yow waaw xam nga yooyu yëpp ci loo bi ma génne léegi la bokk. ci loo éducation fa la bokk lépp ñu ngi la koy traité ci bi ngay nekk élève ci bagage yi bi ngay nekk booy ànd ak grand yi falal la koy traité et puis fa ngay xamee mbir mi nan la war a demee ndax xam nga ki war a ñëw tëggal nit ñi. tëgg góolu kenn mën a comprendre nga ne fa di wayaan yow xamuloo li ngay def bu ñu la waxee dëgg rek maîtriser ko amagoo expérience sa métier wayaan ci aar la bokk mais ci bu jotee ci bu jotee yow dana la fay xaalis sax kaay tëggal ñu nga ñëw indi say tambal major ànd ak say gaa ñëw mais yow yow loolu contrat la dan la fay yow ñi la déranger indi la pour seen programme yow dafa goo dara lu ñu mën a comprendre nga ñëw teg wayaan loolu mooy yow ci li nga nekk nekk goo ci original. non nekk goo ci original amoo expérience. boo amoon expérience da ngay convaincre nit ñi ba pare soog a indi wayaan mais yow convaincre oo kenn dafa góolu kenn d'accord nga ñëw teg wayaan. yaa ngi saboote da nga war a tëgg. def lu leer ñepp xamne wala voilà nii la wara a teug kat bi ñew na mu ngi teug nga def lu nice ñepp xamne ki vraiment li muy def set na leer na mën na ko teg na ko ci yoon wayan so a ñew ah wayan après la wayan do ñu jital ko bilay bilay am <laughs> abdou le grand tamu mo ah vraiment parce que tay yi euh, li may dégg ci yow parce que daan damay dégg ci yow quoi li ngay li ngay def yëngal tamit ci bi loolu ab tey seen programme yéen aussi ndax ci seen programme ci kat ci tëgg rek la am des fois du ngeen organiser comme seen bopp ay soirée wala ngeen def ne ko loo xamante ni yéen ko may nit ñi may ko seen fans yi pour gars yi di mën a découvrir ni ngeen di def waaw loolu nag man ci côté boobu sax man manqué na ma waaw parce que man mii sax parfois ma ne non waroon naa léeg-léeg jékki-jékki woo sama yenn xarit yi may leen benn programme damay am yéene bi ci ñoom dama koy bëgg waaye lii tax may xaw a arrière ci loolu mooy damay ragal programme mbedd. mbedd dama koy xaw a ragal waaw. parce que li tax ma koy ragal mooy invité ay nit woo leen ñu ñëw programme bi jeex ñuy ñibbi ñu leen di koj di nangu seeni téléphone ñi ñuy këf seen cheveux naturels yi mën nañ ci bëgg a jël yëfu nit mu riposte ñu jam ko dama xaw a ragal programme mbedd. mais bëgg naa di ko maye nag. mais des fois ngay def aussi programme entrée waa xanaa loolu programme entrée mm-hmm. laay gën a sawar ndax mooy ëpp sécurité ndax bu dee programme entrée la mm-hmm. ci porte bi day am ay sécurité du n'importe moo fay dugg mm-hmm. boo ko teg loo xam da ngaa ñëw rek saam ko ci mbedd nit mën naa romb sax nit ko taxaw di seetaan ne mu këf greffage am dem ak moom wala mu këf téléphone am te damay am kersa. programme Abdou Diouf laa demoon ñu këf sama nangam. bëgg naa lu ma neex waaye bëgguma lu ma neex ba lor nit damay ragal loolu bëgg naa lu ma neex nag waaye du ma bëgg lu ma neex ba yàqal nit mbaa ma lor ko yooyu daf may dama ci xalaat moo tax moo tax taamu ma nag fu ma toog rek di sam programme ci mbedd mi nii jéeg-jéeg rek wootee programme c'est normal aussi c'est normal quoi c'est normal dama koy bëgg nag dama koy bëgg trop mais loolu laa ci xaw a sóoraale rek moo tax heure bu ko xalaatee ma defaat ndànk loolu kese la mel leneen. macha seen euh, par exemple tey seen programme yi quoi comme des fois nit waaj dara tuddee la wala nit organiser dara teg ko sa loxo. ñoom tey jii loolu noo koy dundee en tant que artiste bi am dara nit sa mborom artiste tu jël dara tuddee la ko quoi noo koy dundee loolu yëpp. ah mais loolu loolu. kontaan yëg la loolu kontaan la xam nga nit. lu la yàlla joxul na da koo xam say morom jox la ah te nit bu jëlee bés tudde la wala mu invité la ci mbir daf la sentir da laa sentir da laa considéré. yéen oh, am day am bu baax bu baax bu baax parfois nga gis ko organiser dara ne man lii diw laa ko tuddee parce que kooku dafa am ci yëg-yëg. xam nga nit ku la tegul fenn mënul loolu. nit saa bu defee loolu c'est parce que mu ngi lay fàttaliku kii am na fu mu la teg. parce que nit ñi bëri nañ fi. xam nga tey jii bu doon leneen lu ñaaw da nga naan kii yab na maa kii ñëpp la fi bàyyi ñëw ci man kon daf maa yeb. kon bu dee lu rafet la mu xalaat la ci kooku am na fu mu la teg kooku li la war dara dara waru la lu dul bu bés baa nga solo ba rafet jël la nga am dem fekki ko teral ko. siggil ko xamal ko ne koo sentir sentir na la bëgg goo gis nga koy fay du leneen lii kese la. macha tamit loolu loolu artistes yi war gën a taxaw ci bu baax dafa am dafa am important day dund relation bi quoi. art du guerre milieu artistique du guerre te les vrais artistes nekkuñ ci guerre. ndax dégg nga ma. bu baax art du les vrais artistes ñooñu nekkuñ ci guerre les faux artistes ñooy guerre ñooy xeexante ñooy bañante ñooy yàqalante ñooy yàqante kenn du bëgg a gis sa morom loolu faux artistes yi ñoo koy dund mais les vrais artistes dañuy bëggante seen biir kenn ku ci ne da daaneel sa morom man tey su ma gisee ku mën a tëgg dama koy bëgg. parce dafa am loo parce que moom laay dund. su tëggee lu neex sama xol day sedd damay bég ndax li muy def koy sentir dama koy yëg dama koy yëg ci xol dama koy yëg ci xel dama koy yëg ci deret parce que moo ne ci man. ki nga xam ne day defu lu sedd sa xol munoo ko bañ ah. munoo bañ kooku parce que kooku dalay bégal kooku dalay kontaanloo ni ngay demee gis seetaan benn star muy def lu neex ngay kontaan mm-hmm. kooku noonu la lay bégloo yi nu ko raw. parce que ci sa domaine la la woo léegi nag xeexante bi yàqalante bi bañante bi loolu foo artistes yi ñoo koy dund mais les purs artistes dañu respecté wante dañu bëggante dañuy apprécier wante. parce que loolu loolu loolu lay dundal aar que comme ah. nekk say fonction dafa nekk jiwoon yi am nañ benn mobilisation bu am ci ñoom moo xam maçon bi mécanicien bi ak ñeneen ñeneen comme ni ma la ko waxee rek sànq émission bi seen bokk na te ku nekk dafay jàpp. oui ñoom it ku nekk maanaam am na benn déggoo am ci ñoom. oui moo tax il faut ma laal tuddkat yi. Mhm. su ma jege ci ci beneen waykat laay laal. oui oui. ñu maanaam c'est par Sénégal la wax. oui tey jii Sénégal ñëpp ñu ñëpp dañoo war doon benn muy amoo xam loolu doon artiste beeg ñeneen ak ñeneen ak tey yow en tant que artiste bu mag. Mhm. doon tëggkat gérer benn association gérer tambour major. oui tey lan ngay jox conseil par exemple say quoi. Mm-hmm. ni ñu war a compété ak booy yi doo ko ñëw booy yi bëgg am. Mm-hmm. waaw loolu li ma ci conseil bi ma ciy joxe mooy métier boo gis euh, nga bëgg ko respecté ko teg ko ci yoon mooy tax métier boobu ku ko gis mu neex la ndax nit mënoo yor dara saboté ko yàq ko bëgg nit ñi bëgg ko li nga xam da bëgg nit ñi bëgg ko yaa koy njëkk a bëgg li nga bëgg nit ñi respecté ko yaa koy njëkk a beneen bi ci toog mooy sunu rakk yi booy fël nii ñu naqaree canaliser lañ ñu naqaree canaliser lañ ndax li tax ñu naqaree canaliser mooy euh, ñun sens bi ñu amoon mooy dañoo amul woon fit dañ yoroon esprit xale neex a waxal amuñu woon fit boo ñu yemalee dañuy yem boo ñu yónnee ñu dem boo ñu defloo looy dara ñu def ko mais suñu rakk yi tey dañoo tombé benn benn monde bu jaxasoo boo xam ne xale yi dañuy teel a am fit. bàyyi bàyyi hmm? dañuy teel non xaa dañuy teel a am fit. dañuy teel a jël seen xelu bopp doyloo ko xamuñu. Hmm. ku leen gën a comprendre xamuñu ku leen gën a comprendre xamuñu yooyu ñoom ñoom dañu ñëw rek voilà ñun lii lañ bëgg li la def ñoom noonu lañuy dundee ñun lii lañ bëgg li la def gëmuñu ne nit <laughs> danga nga war a jéem a gëstu quoi ci ku la ëppale. li ci biir loolu yéen tamit yéen ñi mag ñi am ngeen a comporter ñoom daal. way lépp bu ko defee rek yow mi leen mag mm-hmm. yow yaa leen di naxtaan. ndànk ndànk. di leen naxtaan ak muñal leen nag naxtaan leen ba teg leen ci kot waaw nax leen ba teg leen ci kot mais xale yi léegi bu njëkkoon jàng métier daa amoon léegi jàng métier amatul léegi booy ku ci ne tëll patron boppam lay nekk yow mi yow mi ko féete mag da ngay wax par exemple li ngay wax ay ree la koy def boo ko dee ginnaaw mu a ma bàyyi ma kii yow bi fa neex waaye te fekk te fekk xoolal te fekk xoolal yaa ngi bëgg mu comprendre mais pour mu comprendre day jafe parce que yow ay ree nga ko def parce que booy la <laughs> booy léegi loo xam ne moom dafa neex. la gars yi wax a pare ne moo kii ay ree la ma def. looy conseil booy ah, dara li ma leen di conseil mooy ñu bëgg dara. bëgg dara. ñu bëggee dara rek neex a waxal ku bëgg dara. day neex a waxal boo waxee moom na la déglu te tax daa bëgg dara. ki bëggut dara nag du déglu kenn xalaatu boppam lay yor day ndox ba ne tañax bëggu taxaw mais ki bëgg dara danaan tekk di la suivre waxee mu déglu la boo waxee mu dégg la parce que daa bëgg dara te dafa am xale yoo xam danoo nekk ay xale bi dañoo yeewu dañoo bëgg dara soo waxee dañ lay déglu te dañuy xool li fi fi njariñ nekk. ñu ne fa. ñu ne fa su ñu xamee ne lii ngay wax nii lu leen amal njëriñ la dañ lay déglu ci lii nga leen di woolu am njëriñ la dañuy dañ lay topp ci loolu ñooy ñooy xale yi nga xam dañoo bëgg dara xale bi bëgg a mën aar kooku artiste bu mën rek a koy intéressé te bu ko gisee fu mu ko jëmale mu jëm fa ndax li nekk ci yow da koo intéressé bu dee koom te nag li nekk ci yow moom xamu ko munoo ko wax mu dégg. <laughs> loolu la li nga wax loolu dana moom xam nga aar moom li ñuy aar dafa garaaw. pire te li nga wax ci nouvelle moo tax man ñoom laa fi nekkal quoi sérieusement. oui oui man nouvelle génération bi laa fi nekkal les jeunes. Mhm. ci am loo wax rek fii nga ak dëgg la mhm. boo nee aar dégg tey jii boo ne par exemple Tambour Major. oui gis tëkkat yi nga gis ñëpp ay boy la ñu doon. 22 ans 23 ans. oui 24 xale yi ñu koy gis des fois benn mag nga ci gis ñu ñuy jiitu ci ci ci kanam. ñuy mm-hmm. diriger muy diriger aussi gars yi ànd ak ñoom quoi. tëgg mu mm-hmm. neex. Mm-hmm. moom laa ne. wax tey jii am na lu bari loo xamante ni. yéen xamal yéen a ko war a comprendre parce que bëgg nañ bëgg loolu ngeen leen di jàppale aussi di di leen di leen di ci corps quoi di leen corriger aussi. waaw loolu daal loolu loolu moom surtout loolu waaw war ngeen cee dox bu baax a baax baax. war nañ ci dox war nañ ci dox war nañ ci dox mais comme li ma la wax léegi aussi xam nga daf ci nekk xam nga nit ku nekk ak li ko yàlla may am xale yoo xam te ni ay xale lañu waaye dañoo dégg dañoo am dégg-dégg am na xale yoo xam dañoo bëgg a mën. loolu ci éducation am dégg-dégg. xam ni waaye comme ñun rek ñun mi nekk ay booy ñun dañoo bëggoon aar ba nga xam te ni bu ñu gisee grand bu ko mën. grand bi ñun ñoo koy xel di wër kon xam nga ñépp yemuñu. nekk ay booy bëgg aar ba nga xam ne bu ñu gisee grand bu mën ñun grand bi daf ñuy intéressé fu ñu ko gis da ngay gis eh grand waay ñëw ne ci wetam parce que talent bi ne ci moom dañ ko sentir. xam xam dañ ba pare dañoo xamoon ko am talent loolu nag nekk xale yeewu xam li nga bëgg dala koy may. nekk booy xàmmee ko am talent. bu ñu mësaan a gis grand bu am talent ñun dañ lay bëgg. di la béggee say fans la ni doon. parce que xam na li nekk ci yow te li nekk ci yow bëgg nañ mu nekk ci ñun kon boo waxee dinañ la déglu. ah voilà bokkut ak nga xam ne xàmmewul yooyu yëpp kooku day tañax tañaxi rek moo tax man la suñu rakk yi léegi ñoo leen di naxtaan rek xam nga fexe naxtaan leen xam suñuy njaboot lañ nag xam na naxtaan leen fexe ba vraiment nekk ak ñoom ci jàmm nekk ñoom nekkin bu rafet waaw. loolu leen di loolu leen di ñëpp di conseil quoi en tant ci ñenn parce que tey jii dégg naa say jaloore aussi. Mm-hmm. te nekk ba tey yaa mm-hmm. euh, ko dalee ci banlieue bi Kër jàpp yëmbal buum. oui oui Fass Mbao yëpp. oui koo wax xam ne Abdou Diouf. li nga wax sànq ci Diouf Tamba li nga koo ne Diouf Tamba ci ma ko day. yàggul dafee yàggul. ba tax tey jii ñu bari xam ba ma jaaxlee démb dañ ne ma wóol Abdou Diouf. ndeysaan. wax nga moom laa la expliqué démb. Mhm. mu doon loo xamante ni loolu ndam la quoi ci yow am nga di naan am nga am nga ci ndam. dëgg la. am nga ndam quoi ci tëgg ndax tëgg nga ba tey jii. way way way waa yàgg nañ ci yàgg nañ ci tey jii man euh, banlieue. du ma ne banlieue sax Sénégal yëpp. Sénégal fu mu ne nii tëggkat boo gis boo ko nee Abdou Diouf bu la nee xaw ma ko rek yàggu ci tëgg bi yàggu ci mais banlieue bi koo ci ne Abdou Diouf. wax dëgg yàlla way ku la ci ne xaw ma Abdou Diouf rek ne ko yàggoo ci tëgg bi parce que ñun dañoo yaroo ci banlieue bi màggee ci banlieue bi demlante suñuy moroom jëflante tëgg yi xam nga nekk ay gaan xam nga vraiment mais tey jii dafa am lu ma neex ci yéen quoi ngeen doon ñu déggu tëgg parce koy seetlu ci programme damay gis kii di way kii di tëgg tey kii di ko defal li ma doon ak mu ngi doon lu lu ci tëgg waaw acte boobu loolu ci yar bi la yar bi loolu loolu li ko indi mooy ca ben ba la ben ba suñu papa daan tëgg boobu ñu nekk ñu ay tëggkat suñu papa moo doon tëgg man maay sël xale bi njëkk a yore galañ di tëgg suñu biir kër di ànd sama papa man sama papa dama ko gunge ci carrière am moo tax bi mu effacé wu rek maa ñëw tëgg naa lu yàgg samay rakk nekk gu ñu ay tëggkat nekk ay xale yu ndaw ma leen di jël encadré leen ñu gis ni may doxale comprendre nga gis man sama aar yàquma ko jëluma ko di ko sànni ci àll ba jëluma ko di ko doxal ni ma ko war doxale dama ko gëm bëgg ko ànd ceeg ñoom ànd bu rafet kon ñoom bu nu yeewoo dañuy xam ne kon mbir mi dafa war a nice dafa war a nice parce que ci naaj lañ ko fekk benen bu way benen branche bu way jaar dañ nan la yaangi genn génn gi lo xam na nga ñew fekk mu nice te ñi nga fekk ñu naajsal ko mënoon nañ ko baña a naajsal waaye ñoom dañ ko naajsal ba nga bok ba nga mën ci bok yow kon da ngay xam ne fii voix bi moy na nice motax boy xam nga wax deug ya tamit safara euh ñom ñëpp tamit ma ngi leen di ñaanal guddu fan ak wër mais sama rek lañu ñu ma mag leen ñu nek ay xalé ci man mais bëgg nañ seen bop bëgg nañ aussi li ñuy def tek nañ ko ci yoon té loolu yalla na jëm kanam man rek la bëgg ñu tek ko ci yoon rek ndax lo tek ci yoon mu jëriñ la té man dara ba para diko erreur la nit du man-manam wa yow nit mbir sax mën nga doon nga jàng ko bëgg ko teg ko ci yoon mu jëriñ la ah kon boo doonoo dara te tegoo ko ci yoon du la jëriñ dara loo ko doonu doonu te tegoo ko ci yoon du la jëriñ dara teg ci yoon bi mooy nag doonu nga dara demal jàngi ko parce que li nga doonu jàng bi nga koy jàng moo koy yee liy nelaw ci yow jàng boobu nga koy jàng moo koy yee parce que doon bi dafa mel ni théorie te pratique woo pratique boobu nag mooy amal yore affaire yi. pare ngeen doon ñu wàcc seen bopp te ñu bëri neexu ngeen tëggkat la ñu ngi ñuy dégg fu nekk. waaw ñu ngi ñu ngi suñu ñu ngi feeñ fu nekk daal. waaw nii lañ war a dox nii mais da ngeen wàcc seen bopp. oui kii la waaw xam nga wàcc sa bopp diine moo ko njëkk a santaane ndax yàlla dana ne wàccal sa daraja ma yëkkati ko. ah kon nit da nga war a modeste nga nekk nit bu simple parce que yàlla mayewul daa able loo bari la bari la romb loo moomul loo mën gis ku la ko gën a mën loo ñàkk gis ku ko bari le loo bari la gis ku koy wër amu ko kon nit da war a modeste nga dal wàcce sa bopp am taalibe am taalibe am taalibe munoo am dara ba am fi lu nit musul am munoo fi def ba def fi lu nit musul def demoo fu kenn musul dem kon tegal mbir mi ci yoon métier dañ koy organiser teg ko ci yoon rafetal ko yor ko ci anam bu rafet xam nga ba ku ko gis bëgg a jàngi métier boobu waaye yor métier doxale ko noo xam ne ku gis ku gisati métier boobu même boo ko bëggoon da ngay bañ métier bi ah nekkatuñ ci monde boobu. nekkatuñ ci monde boobu vraiment vraiment vraiment parce que tey jii ak lépp ngay mën ci def ko koy gëm ci gëm-gëm. koy gëm bëgg ko. ba pare nekk ci nekk am ci am ci fulla quoi parce que tey mais loolu mooy affaire bi. wàcc wàcc sa bopp surtout wàcc sa bopp. nga xam ne amuloo ku dul nit ñi nit ñi tey garabam. nit amoo lu dul nit ñi. nit amagul nit ñi kon na nga modeste en même temps li ne ci yow benn produit la bom te nit ñee ko soxla il faut nga modeste dundu ak nit ñi may leen jamm may leen salam may leen salam may leen bo seq ak ñom lu nice machallah tay yi lool jamm ak salam bi nga leen di may tey jii moo waral yi bo wote wootee ñoom ñëpp dañuy ñëw. dañuy ñëw. comme ni ma la ko waxee sànq ci commencement bi émission bi moo doon loo xamante ni bu xaj ci benn plateau bi. dëgg la. par exemple tey il faut ñu fekk si la sa koñ. oui ñu génne bagage. te yi si benn bagage yi mënoon na fi du yomb. ñu <laughs> prochaine fois prochaine fois kër ga ngay ñëw. ma génne bagage yi. ñu toog def jotaayu ngéwël. waxta waxtaanee. waxtaanee ko waxtaanee ko. en même temps fi ma dëkk buun aussi xam nga. waaw foofu la foofu euh, waaw war waaw war naa leen a nuyu war naa leen a gërëm war naa leen a sant mm-hmm. ah ku juum. Bun la yaro magge bun di doomi bun, ak salam salaam medinatu ba keur masar ba jidda ba fas baaw ba yembal ba malika secteur bo yëpp mu nan dama fa yaro magge fa bëri fa ay am di jam bëri fa ñom te sama samay nitu démb lañ sama nitu barki démb suma ma damay joom trop trop xamna lolu damay teunk rek daal di nuyu waa Mbour yëpp xam nga gërëm leen sant leen jox leen seen waaye ndax nit fi nga dëkk ñaari nit kese bëgg la amoo seen fay. ah ndax kenn ku la bëgg jar naa daw ba dee ngir sax hmm. ñi la bëggul. waaw kon waa Mbour yépp ma leen di gërëm di leen sant di gërëm sama waa kër di gërëm samay waajur. falaa woon a njëkkee waa xam nga ñun suñu waxtaan bi daa xorom daa géwale <laughs> waaw maa ngi gërëm sama waajur yi. sama papa sama yaay di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te wér yàlla defal leen jàmm ñu yàgg sama kanam yàlla defal ma teraanga yu bari ma koy bokk ak ñoom rek di nuyu sama famille yëpp nag ñi ne ndakaaroo ñi nekk fépp maa ngi leen di bégee di bégee sama xarit yi nekk ci Europe beeg Sénégal beeg Afrique beeg région bi et maa ngi nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waa buun bu baax di gërëm sama jigéen yu baax yi nekk ci dëkk bi muy buun Daaru Salaam maa ngi gërëm ñëpp di bëggee ñëpp su ma limee damay juum moo tax ñi ma tudd turu kenn. <laughs> ñàkk ñàkk mais mais mais mais mais yow it yal na la yàlla defal jàmm. ndax nit ku baax nga. sama rakk nga sama xarit nga. émission bi mun naa ne par impro la ñëwee ci man. mais li olof di wax naan ko bokk ci gerte gi naan ci meew mi. da bokk ci man. mais parfois sama yenn gars yi ma daan mu invité mais dama doon naan daf damaa am ay programme yi may def bàyyi la ba ma pare waaye yow moom danga ma ne invitation ma gën la ko yàqamti parce que dañoo dëkk sa yaay nekk ku baax yow it wàccoo yoon bi parce que facturé mooy sa yaay te facturé dafa tombé faatu Law bi ak Marème yi ak Mame Ndiaye ak Baba Diallo sa sa ak daba sëy yow sa yaay dafa dafa sa yaay dafa dafa dafa dafa nekkoon ak ñoo xamante ni ay ndaanaan lañu ay artistes lañu ñu nekk ay xaritam nekk ay wëlëreem nekk ay nitam ah euh, mun naa ne doomi artiste la sa yaay kenn du koo génne ci aar parce que dafa fréquenté artistes yi artistes yi nekk ay xaritam nekk ay wëlëreem mu xam ci aar lu bari tey jii bëri na artiste tey boo leen tuddoon sa yaay danaan la ane nàngam ñoo doon añandoo ñoo doon naandoo ataaye kon yow it fii nga teg sa tànk lu war a mën a nekk la ndax ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi te gaynde du jur muus mukk kon fii nga teg sa tànk war naa mën a ne doomi artiste nga macha allah macha allah yal na yàlla xeeb dool yi. yal na yàlla comme ni ko waxee rek sama sama yaay ba nga nee ba ñu ba ma ba ma émission bi ba mu commencé. oui ma dugg ci jeunesse bi dugg ci chef de quartier dugg ci ñeneen ak ñeneen bàjjenu gox bi. ma duggal ci art invité artistes yi. oui dem ba ma koy dama dama ci kër gi nga xool am nga waxtaan ak moom. dëgg la macha allah di ko nuyu mooy sama sama sama sama sama jàmbaar bi quoi. dëgg la di amaat nag contentement bu baax a baax a baax àndaat ak yéen fii ci seen euh, la RMB Mille Voix de Lambaréné. vraiment télé bi nag jeunes yi dafa nekkal képp ku nekk ci bànneex télé bi mu ci yow fi nekk da xam loo mënti doon nag parce que émission bi bokk la tudd yi si bokk bari na mm-hmm. kon da ngay ñëw waxtaan ak yow saafonte ak yow mm-hmm. génn ñoom ay xalaat mm-hmm. nekk waxtu aussi du la neexam du la nakari parce dëgg la dëgg la c'est nous daal ñoo ko mën a yaatal sama gaañ macha allah Mario Mbaye di ko nuyu Mm-hmm. kon de sama xarit bi ne ni chaque jour dëgg la <laughs> sama RMB TV dafa xew. dëgg la kenn ku di allah. ah kon nag waa banlieue jóg leen. ngeen wuyu waa RMB TV parce que ñoo xew ci jamono. Mm-hmm. télé bi yal na fi yàlla yokk xéwali bu baax. lepp lu ngeen fi liggey ngeen jëlee ci lu kawé sen njort waaw loolu dal vraiment ma ngi koy ñaan bu baaxa baax et puis banlieue bi artiste yi jog leen yeen ñëpp ngeen ñew wuy wa télé bi ndax nak ñu couvre leen lu garaaw parce que fi le bourbi mi tàngee ah. fi le bourbi mburu mi di xoyam xoyam na ñëpp jóg. allah macha allah merci beaucoup contentement ni nga waxee. waaw émission bi am na keneen ku mu invité woon. oui ak empêchement yi rek. si ndax la bopp ma loolu moom. Mhm. vraiment di nuyu nag sama am di yi sama xarit yi papa ñoom ñëpp maa sama sama sama yaay la sama xarit la. ndeysaan sa di ndax gars yi dañ koy bañ. vraiment mhm. di leen di leen jox dig daje nag ci fii ci la RMB bi waa ngi noonu.